des investigations criminelles di xaarandi Lat Diop ci li nga xamante ni si xëy na moom lañ koy moom lañ koy laal ñëw toog ne jàppale ma sonn na trop baax na Lalla mu mel ni fële nga jóge woon sànq ci ci kanamu ci kanamu buntu ci kanamu buntu dig euh, sànq nag dem nga ñëwaan nga ndax am nga benn info benn xabaar boo xamante ni si moo fa tukkee wala ba tey mbir ni meloon rek noonu waaw euh, aji maa ngi lay jaajëfal bu baax a baax donc dañu demoon ci côté bële pour mën a apporter ay information xool exactement lan moo tax audition bi jël temps donc dem nañ fa bi ñu demee jot nañu discuter un peu ak ñi nga xam ne ñoom lañ fa fekk donc laaj naa leen lan moo audition bi ba tey jeexagul et autres mhm. mais dañu xaman ne lu tax euh, du dañ koy enchaîner donc am na ci moment yoo xamante ni dañuy pause suñu posé noppalu tuuti daal di continuer waat donc c'est comme si c'est comme si euh, nu muy demee ci procès yi xam nga am na benn moment boo xam ne dañuy nekk ci plaidoirie yi suñu paree jël pause. da ngay gis ci audience bi tout à tout moment juge bi mun na jël pause soit heure de prière wala repas yi wala sans dépend mais lu tax affaire bi jël temps mooy audition bi dafay am pause léegi nag pause bi mën na gudd comme mun na gàtt te wax dëgg yàlla suba ba tey nag xanaa nit munu koo toog benn place rek ñu lay laaj ngay tontu donc loolu moo tax affaire bi duré loolu moo tax mu jël temps. alors par xam nga ñun dañuy def suñu liggéey rek mun nga laajte mais duñ la wax lu sori en fait parce que laaj naa leen ma ne leen est-ce que jàpp ngeen ni audition bi dina jeex tey mais li ma li mu ma wax daf ma ne ma même bu audition bi jeexul tey tamit dañ koy arrêté ba suba te xam nga sànq wax naa ko sama biir wax te week-end la ñu nekk il faut ñu sóoraale ko bu doon jour ouvrable la ak heure boo munti pare mun na tane mais tey ñu ngi ci samedi. te sànq gis nga force de l'ordre yi ah foogoon naa dem dañ mais ba tey demuñu ñu ngi ci buntu buntu dig bi ci beneen côté bi mhm. benn instant sax dañuy mel ni kuy patrouiller enceinte yi mhm. donc li ma mën a wax mooy euh, audition bi ba tey jeexagul parce que dañ doon am jël ay pause yooyu xam naa nag peut-être pause yi moom moo jël temps mais euh, ki nga xam ne moom mooy Lat Diop ba tey mu ngi biir dig mhm. parce que euh, comme ni nga ko waxee mbir yi boo ci buñ la bu ñu la waree euh, déglu ñoom seeni propre moyen la ñu teg rek pour mën a am soutirer la les informations yi nga xam ne moom lay soxla donc manière bu ñu ko ti defee aussi euh, on n'a pas le choix ñun dañuy toog xaar mais li ñu mën a wax internet yi daal mooy moom mi nga xam ne moom mooy ancien DG bu LONASE mi ngi ci biir locaux yi ba tey génn génnagul avocat am génnul kenn ci ñoom ñaar génnul ñu ngi ci biir ba tey cas jot nga ci gis ko ni Me El Hadji Diouf moom rek actuellement moo fi nekk avocat wala des nañ ñeneen xam nga sànq moom laa doon wax ma ni la pôle avocat bi man euh, doon naa jéem a xam. Mhm. exactement kan ak kan la mais depuis si suba ba tey. Mhm. kenn laa fi gisagum ci pôle avocat yi muy maître El Hadji Diouf mhm. à part maître El Hadji Diouf gisaguma fi kenn koo xamante ni ci pôle avocat mi ci avocat mi nga bokk. mun na am nag ñeneen ñu bañ leen a gis peut-être maître moo ci gën a fës mais en tout cas moom génnagul. deful benn déclaration euh, gis nañu nag benn poste boo xamante ni suñu ay naataangoo daal dinañu koy def tout à l'heure euh, muy euh, suñu sukkandikoo ci source bi muy waa mm, buur News donc gis nañu léegi benn poste bu ñu def mhm. par rapport ak ki nga xamante ne moom mooy Lat Diop peut-être moom ci kàddu yi nga xamante ne mun na si nañ cee sukkandiku Euh, dañu xamal rek nii euh, ki nga xam ne moom mooy euh, Lat Diop ci dernière minute yi nga xamante ne nii peut-être ñoom xam nga mun nañ am possibilité aussi am des informations parce que mi ngi noonu ñoom xamal nañ ñu ne jusqu'au moment où nous mettons mhm. en ligne ce texte mhm. Lat Diop est toujours devant les limiers mais en croire mais en en croire mhm. son avocat L'ancien DG de la LONASE va passer la nuit chez lui. Mm. Aucune charge mm. n'est encore retenue contre lui. Okay. Lat a répondu à toutes les questions hmm. et il a démontré qu'il a fait beaucoup de bénéfices hmm. à la LONASE, okay. a déclaré, Maître El Hadj Diouf au micro de Bir News. Hmm. Selon Maître El Hadj Diouf, ce qui se passe, ce sont des dénonciations calomnieuses et des diffusions de fausses nouvelles. à l'encontre de son client nous y reviendrons. d' suñu sukkandikoo ci première xibaar yi ñu jot ci avocat bi moom nee na jàpp na ni client am dina ñibbi këram et que li ñu koy waxal yëpp def si dara comprendre nga liggéey bi mu waroon def def na ko euh, jëlee na Lonase point bi yóbbu ko point B donc ainsi de suite mm-hmm. et que li ñu koy toppee yëpp c' est des diffusions de fausses nouvelles euh, ay dé ay dénonciations calomnieuses comme ni nga ko waxee mm-hmm. donc euh, jàpp nañ ne daal moom client am dina ñibbi aji te il est ban jot 21 eh, heures 21 heures 7 minutes moo jot mën nañu xam ne kon Lat Diop ñu ngi ko daal di convoqué woon euh, ci suba daanaka ay 10 heures ñu ko convoqué ba léegi xaw ma na ban heure la fi exactement parce que sûrement moom ko jot na man ay 10 ay laa fi ñëw bu wax midi mais du mu fi mënti doon rek en tout cas ñun ñu ngi xaar di ba xam lan moo nar a tukkee fii ci mbirum Lat Diop li laal wax sànq ñoo ko déggandoo ñun ñëpp ak yéen ñi nga xam ne bokkul internet yi loolee moo nekk mbir moo xamante ne si moo fi xew moo fi moo fi xewagul doon tamit si xëy na nee amagul benn charge boo kon mu ngi bénéficié wu li nga xam ne moo di présomption d'innocence ba ba lée ba léegi nii nii nii xamagul nag ba xam dan mooy tukkee ci mbir yi encore xibaar bi nag ñu ngi ko jot il y a de cela huit minutes environ daanaka peut-être ci kanam tuuti rebondissement mën na am à tout moment bu si laaj jub day ñibbi wala day toog ak lu mu mënti doon dinañ ci xam dara yéen ñi nga xamante ne si yéen a ngi ñuy bàyyi xel fii ci Feeling Dakar TV nga xam TV li ngeen mën a jàpp nag mooy ba léegi nii audition bi yàgg na trop trop trop trop te ñu bëri jàpp nañ laaj bu déggeen tey ji dina leen jaaxal xëy na Amadou Ba kàddu yi nga xamante ni si avocat daan na ko wax uniquement c'est pour dalal xelu Sénégalais wala pour dagal xelu ñi nga xamante ni si ñoom ñi la ay partisans la mais en tout cas euh, ñu ngi xaar te actuellement militants yi nga xam ne ñoom ñoo fi nekkoon xaaj bi yëpp dem nañ ñibbi nañ waaw parce que ay benn benn ñoo des fële ci ginnaaw mhm. parce que sànq bi ma paas bi ma demee ba buntu dig bi avancé naa tuuti ci alentour yi pour xool ba xam ñoom ñu ngi fii mhm. donc certes am na ñu fa des mais euh, comme ful ñi fi nga gisoon depuis sa matin ñu ñëw fii mhm. donc la plupart dem nañ xam nga sànq bi leen ah takk der yi waxee ñu déplacé wu par la suite toog nañ fi ba ay 17 heures 18 heures ah. par la ci la ñu dem mais am na ñenn ñoo xamante ni euh, ñu ngi fële ci kanam te aussi comme fii ville la mhm. tey week-end la euh, gis naa gars yi xaw a avancé ba nale xam naa dañu doon xool lu ñu mos yooyu mais en tout cas ñoom ñu fa des. Mm-hmm. mais ñi ci des ñëpp mun naa wax ne delluwaat nañ seen activité wala boobu dem nañ seen i kër dem ñibbi. bien en tout cas mu ngi noonu moo nekk li nga ni si moo di euh, information bi ñu ci bëri ñi nga xamante ni si ñoom fa woon daal wante mais la tey demee ne affaire neex na dégg naa waaw sànq demoon nañ fa. Mm-hmm. Euh, muy benn ndaje boo xam ne amaloon nañ ko. Mm-hmm. Euh, gis fekk nañu ki nga xam ne moom mooy maître cérémonie bi muy Thérèse fay Diouf. donc yëkkati nañu fa ay kàddu wax ci yorin bi nga xam ne gouvernement bi yoree na ko réew mi mhm. nee réew mi dafa métteeg yooyu mhm. pare ne nee nañ daal waaw yi dañoo war a yeewu jox leen majorité loolu la waa APR wax tey waaw si seen siège bi waaw mais xam nga loolu moom dama yàpp ni mhm. euh, euh, sénégalais yi mooy comme ni ma wax sànq am nañ la am nañ fayda ils sont matures et xam nañ li ñu bëgg tey bu fekkente ni tey bu fekkente ni ñoom ñuy voté ñoo war a voté xam nañ ko ñuy voté mhm. donc en tout cas daal xam nga euh, législatives kii présidentielles yi toog nañ ñu ne mhm. euh, résultat yi ñu bëri peut-être jàpp ñu woon ne dina demee noonu parce que am na ñu doon wax naan est-ce que am nañ ay carte électeur mhm. xam nga donc tees bu nekk soulevé wu na te en plus tamit comme li ma wax mbir mi mbaxalum xeer la ah njëkk a suurle mhm. um, taxuta njëkk a ñorle te comme politique moom comme ni ko mhm. gars yi di waxee du biir day xëy nig wasin mhm. mais en tout cas man li may wax rek mooy urne yu moom chaque jour nekkul li nit ñi di wax wala thèse yi ngay dégg loolu la ah urne yi di joxe urne yi moom buñ fa demee yaakaar naa lii leer dina leer dina leer en tout cas lii leer dina leer laa la ci loolu mu nekk ndaje bi nga xamante ni si moo di bu waa APD alliance pour la république loolu ne demee njiit la euh, di président Macky Sall. mais nag tey seen ndaje bi xumboon na de. ah Badou. Mhm. maire yi maire APD dafa tën seen. maire yeeg ñëpp ñëw nañu. <laughs> man bi ma fa jaaree sax dafa ne est-ce que lii du waaw ah kon defati nañu seen mënin. <laughs> en tout cas mu ngi noonu boo leen dajee sax day mel ni eh, président Macky Sall dafa daal di woote téléphone eh, di wax ni rek dinañ daal di ano dinañ daal di annonce sax li nga xam ne moo di ab formation eh, bu large coalition ñeen li nga xam ne moo di législative yi nga xam ne moom rek lañ daal di dëgmal te ñu daal di koy jàpp fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru novembre bi la rek ñu daal di dëgmal nga xam ne kon daanaka élection anticipée lañu ñoom ñi nga xam ne ñoo di way politique yi daanaka amuñu temps bu bari rek ngir rek gën a daal di mën a jekkanti ko bu baax baax kon ñi ci ëpp chance xëy na mooy ñi nga xam ne teeloon nañoo jekkasandiku teeloon nañoo xoolaat seen bopp bu baax a baax ci loolu sax laa la mel ni moom président Macky Sall bu mu wootee téléphone daal nay woo ñi nga xam ne ñoo di maire ak ñi nga xam ne moo di les élus locaux ñoom seen ay responsables et militants ngir rek ñu daal di engagé wu ci combat bi bu ko defee rek bañ ñi nga xam ne ñoo di nguur yees gi daal teg ci li nga xam ne moo di euh, les maires yi à l'avenir maanaam euh, bu ëllëg bu naree amaat yeneen mairie bu ko defee ñoom moom fa ay représentant bu ko defee nguur gi nga xamante euh, euh, si moo leen daloon ndax ku ne xam ne actuellement mais mais laala ndax jàpp nga tey a tey ak lu ñu booloo boole ak lu président Macky Sall même bu ñëwoon campagne sax ñoom nañ amante le poids et électoral bi nga xam ne amoon nañ ko ba fun jaar ñëpp tàccu leen waaw mais xam nga tey benn affaire aussi dafa am gis nga li ma waxoon rek sénégalais yi dañu sanctionné APR pendant les élections présidentielles yëkkati 54 pour cent jox leen ko mhm. et yaakaar naa je pense que pour la sanctionner c'est parce que am na lu mu la reproché mhm. et population bi dañu wanoon ne nguur gi fi nekk mhm. bëgguñu ni ñuy doxee bëgguñu ni ñuy doxalee Euh, doyal nañ ci ñoom et que dem leen looloo tax ñu jël les cinquante cinquante quatre pour cent jox ko Bassirou Diomaye Diakhar fay donc tey mun nañu wax ne population boobu moo fi nekkaat ba tey te suñu sukkandikoo ci li nga xamante ne moom mooy seen bëgg-bëgg wala seen gis-gis da ngay ne dañuy joxaat pouvoir bi majorité à l'Assemblée nationale parce que loolu la urne yi wane wane woon mhm. maintenant est-ce da koy wanewaat est-ce que dina amaat loolu yëpp mi ngi suñu kanam mhm. tey APR lenn lenn lu ñu mën a wax mooy ñoom lépp lu ñu jàpp ni rek lu leen war a mën a may doole la dañ koy def mm-hmm. mais xam nga affaire dafa am benn phénomène bu fa am mm-hmm. muy wàllum individualisme boo xam ne dafa am mm-hmm. am na ci leader yoo xam ne kii du bëgg kii jiite ko maanaam dañoo am problème mu unité entre ñoom seen biir parce que tey la preuve am na ñoo xam ne kii te quitté ñu APR pour rejoindre Amadou Ba loolu fissure boobu day wàññi seen doole. bien maanaam au sein de la coalition. Mhm. léegi beneen bi mooy ñaata leader ñoo fa nekkoon ci biir parti boobu. ñoo xam ne mhm. ay leader la ñoo xam ne dañu légitime ci parti bi. Mhm. bi ñu tànnee bi président Macky Sall tànnee candidat am ñi dañu ne carrément ñoom. duñu ko soutenir comprendre nga. donc querelle interne yooyu ak ñàkk congrès yi ñu war war a daan def